jërë ngeen jëf gannaaw mi leen sante ci seen teewaay di wax ne bés bi tey bés bu rëy la ndax ci weeru janvier 2020 ci la Akon ñëwoon sama bureau ak directeur général lu SAPCO que je félicite monsieur le directeur général de alim Sow je voudrais vraiment vous féliciter pour votre dynamisme pour votre engagement dans ce projet et vous dire toute la satisfaction que nous avons au niveau du ministère en vous suivant dans votre engagement pour la réalisation des projets du chef d'État, le président Macky Sall. Bravo, monsieur le directeur général. donc ci janvier 2020 l'ICON et le directeur général SAPCO son bureau ma Icon. ce projet il faut que ci kat ci weewu nag mbaa weewu gëlëm waaye ñun comme amuñu gëlëm ñun ay nag la ñu am for ci ay kon Addis Abeba ca Éthiopie dañ fa tabax benn dëkk bu rëy ñu tudde ko village Icon am déet Mbacke jum du noonu ma ne nag munoo nekk doomu Sénégal ba pare ñu lay gis yaa ngi lancé tourisme fële ca Ghana di tabax ay cité fële ca Addis Abeba

ah nga roy tànk yi nga xam ne moom la gis tey muy sunu mbokk Akon def ko pour investir Sénégal ndax loolu mooy indi croissance pour jeunesse bi mooy indi croissance population yi. mais sant bu baax maire Ngay jën ak population de Mbodiène seen taxawaay ci li nga xam ne def nañu ko di gërëm également le préfet département Mbour jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. so waa Sénégal jëf projet bi suñ projet la man lu may def yéen a tax ma koy def mu leen bëgg a gërëm mm-hmm. te thank support bi ñu ngeen may jox pour ma mën a def lu may def ci monde bi jërëjëf waay